dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu parti bi di APR ma ngi mel ni sabar gu tas ndax bëri na ay kilifa yu nekk ci boobale parti dañu leen di tuumaal ne jamono ji nag ay traître lañu maanaam dafa am ay ndëgg sërëx yoo xam ne dañu koy lalal Macky Sall ngir nag daal di koy wuutu Bara Ndiaye mi nga xam ne mooy maire bu Mewane ba pare nekk directeur de la maison de presse moom nag la mu xamle nee na Aminata Touré mi jiite conseil économique social environnemental ak ministre Amadou Ba ñooñu daal daal maanaam dafa am ay ndëgg sërëx xam ne dañu koy lalal Macky Sall ba pare nag ñoom dañoo am programme boo xam ne bu wuute la ak bu Macky Sall ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien mu ñu xamal nañu en tout cas mooy parti bi di APR mbir mi nag daat na yëngu loola Mame Mbaye Niang moom tim yëkkati woon na kàddu yu mel noonu wax ne nag am na ay traître yoo xam ne maanaam ñooy complot Macky Sall journal bi xëy di ñu xam xamal nañu li am ba des mooy wolof Njaay doon na wax ne naar bu ndaw bi lu mu wax rek maanaam ca xayba ma la ko déggee ca berkelle yo yéen a gi mu ñu xamal lan ñu en tout cas li am ba des mooy Macky jamono ji moom ti ma ngi ci ak pëcc xoogu mag ndax ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi nekk ci boobale coalition démb dañoo doon amal janoog taskatu xabaar yi waaye ñoom nag nangootuñ benn yoon daal maître Moussa Diop di nekk coordonnateur bi nee nañu nag lépp loo xam ne maître Moussa Diop wax na ko ñoom engagé wu leen yéen a kaay gii di Les Échos ñu fekk fa Mbaye Ndiaye moom nag la xam xamle nee na amul benn benn loi boo xam ne mën naa tere Macky Sall mu daal di sampaat ndëndëm Mbaye Ndiaye ne Macky Sall bi ñuy def référendum bi ak loi bu bees bi nga xamante ni moo jëm ci limité mandat yi nag fekk na Macky Sall door ab mandat mandat sept ans boobee nag Mbaye njaay nee na bokku ci moo tax Macky Sall mandat bu njëkk mooy bii nga xamante ni moom lañ ko fal cinq ans Mbaye Ndiaye ne Sall am na sañ bi yéen a gi ne Mbaye Ndiaye nag jamono jii ma ngi xàllal Macky Sall aw yoona yéen a kaay gi de la turbine ñu fekk fa Mamadou Ndoye moom nag la mu xamle nee na Macky Sall jamono jii li am ba des mooy nag dafa soppar ñi leader yi nekk ci benn bokk yaakaar maanaam ay surga ay sàmb sugur gay ba pare tamit moom Mamadou Ndoye la mu xamle nee na Macky Sall dafay nag protéger di làq ñi nga xam ne ay wëyu lañu ay bandi lañ ñi nga xam ne ñoo salfaañee alalu réew mi ñooñu ñëpp Macky Sall da leen di làq moom Mamadou Ndoye yemu sa ci ba tey ci biir journal bi daal di wax na nag li nga xam ne mooy corps de contrôle yi Macky Sall da leen di ñàkkal fayda maanaam di leen di waye di lool ba kenn dootu leen gëm te loole tegewul fenn bu dee am na kenn koo xamante ni jamono ji dafa yàq réew mi maanaam Macky Sall lay wuyoo loolee kàddu yu Mamadou Ndoye la yéen a kaay gi di libération ñu xamal lan ni Guy Marius Sagna nag ma ngi ci yoonu génn ndax ñi nga xam ne ñooy ay avocat ma daan nañuy déposé waat nag ab bàyyëpp néggandiku maanaam demande liberté provisoire la ñuy sàkku yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu docteur Babacar Diop ak ñi nga xam ne ñoom la àndal waa collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag seeti woon nañu cardinal Théodore Adrien Sarr ngir nag daal di kay wax mu yëkkati ay kàddu ngir ñu mën a bàyyi Guy Marius Sagna waaye nag Théodore Adrien Sarr la mu xam leen nee na am réew dala bu dee nag justice ba tëddeewul njaaxaanaay injustice am fa musiba mabba kumba gu nekk mën naa daal di am moom Théodore ne Guy Marius Sagna mi ñu ñu tegoon loxo ak ñu baree bari bàyyi ñëpp ba mu des moom kese loole nag man naa andi jiixi jaaxa ci xel yi moom teewandeer na mbiri Guy Marius Sagna maanaam dara ump ko ci ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal lan ñu collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag ni ki suba ci àjjuma ji danañu wàccaat ci mbedd yi journal bii di enquête mu xëy di ñu xamal lan ñu nag mbootaay gii di SAES nekk si wàllum njàng mekk njàngale mi ñoom na ginnaaw tournée yi nga xamante ni ñoo ko doon amal nee nañu ñetti fan ci weeru mars daal di dem ci ab gréwa université bu Bambey bëri na ay étudiants yoo xamante ni dañoo xëytu mooyu université ba maanaam seen njàng daal di yàqu la ko waral nag mooy anam bu bon ba nga xam ne moo nekk ca boobale université waa grand place yéen a kaay mu ñu xamal lan ñu Aliou Sall maire bu Guédiawaye moom nag daal nay porter plainte Ahmed Aïdara ci lu jëm ci mbirum bi nga xam ne dañu doon wax ne Aliou Sall def koo daal jaay ab terrain benn milliard ca Guédiawaye Omar Faye leeral askan wi ci biir yéen a kaay gi nag la mu daal di xamle nee na Aliou Sall jamono ji nag li ko waroon maanaam mu yoxosu di riisu miir yi te nag leeral Sénégal yi li nga xam ne mooy njomba yeeg giraawaal yeeg tooxi nga xam ne moom la ñu ko tuumaal te waa BBC daal di def lu ni mel ba léegi nii andiwul dara loo xam ne lu leer la loolee nag moo waroon Aliou Sall jamono ji muy ji biir journal bii di réew mi ko di jee ñu fekk fa Pape Diop bu bokk gis-gis moom nag nee na jamono ji dafa jot sëkk askanu Sénégal daal di ànd ak ak Macky Sall mi nga xamante ni maanaam dafa bëgg a confisquer li nga xamante ni mooy bëgg-bëggu peuple bi Pape Diop bokk gis-gis na Macky Sall dafa am loo xam ne maanaam moom lay waajal loole nag il faut Sénégal yi daal di xippi seen bët Mohamed Dionne nag moom saa su waxee boole rek daal di wax ak giraawaali ak njombe Pape Diop ne am na lu ko naqari loola kero bi mu déggee Mohamed Boun Abdallah Dionne di wax ne ki def rapport kuddu bi jëm ci Cheikh Omar Anne ab français la te ñëpp xam ne kooke ab sénégalais la yéen a kaay gi libération mu ñu xamal lan ñu Alay Jiite mi nga xam ne moom lañ doon loxo ak Thione sekk ci lu jëm ci ay faux billets moom Alay Jiite moomee nag daan nañ koy tegaat loxo ci diwaanu Mali ci ay njombeeki tooxi doona yoo xam ne jëm na ci ay faux lu toll ci neuf cent millions faux billets la ñu ko jàppee ay machines yu bare bari ak ay passeport réew yu bari la ñu ko daal di teg loxo moom alay jiite moomee nag turam dëgg-dëgg maanaam dérig la ab camerounais la surnal bii di enquête mu ñu xamal ñu coronavirus bi nga xam ne maanaam ma ngi jaaba jonge ci àdduna bi jamono ji nag ma ngi commencé gën di law di yaatu fi nga xam ne maanaam moom mooy Italie ñi nga xam ne nag ñooy murid yi bëggoon a amal Kazu Rajab ci itaali ñoom jamono ji lépp daan nañ koy teg si suufa église yi ak jumaa yi ca Italie yépp dañu ko daal di tëj journal bi di source a xëy nag dikkal ñu ci mbir mu doy waar a doy waar maanaam médecin bu góor boo xam ne Abdoulaye Sylla la tudd ay atam toll si ñaar fukki ak ñeent moom la ñu bett moom la ñu bett moom la bett ak benn paa boo xamante ni cinquante ans la am bu tudd nag Samba Kanté maanaam ñoom ñaar ñuy siim seen maringaañ ñi atte nañ leen nag sa tribunalu Louga waaye nag Abdoulaye Sylla mannequin boobee nag tëj nañ ko juróomi ati kaso paa bi nag ñu daal di koy tëj ñaari ati kaso lu doy waara doy waara ñi nga xam ne sax ñooy attekat yi bi ñuy dégg ñu leen di nettali histoire bi maanaam dañu doon dar nopp man ñu nekk yéen yéen kaay gi di stade mu ñu xamal nañu ni ki dee mu nekk waa Lyon defal nañ affaire Juventus de Turin ñoom Cristiano Ronaldo Real Madrid moom nag Manchester City moo ko fekk ci dëkkam daal di koy dóor ñaari bal ci benn journal bii di sunu lamb mu xëy di ñu xamal nañu tournoi bi nga xam ne Bécaye Mbaye waxoon na ko Khadim Gadiaga bu Rock Énergie ñoom nee nañu ab tournoi intéressé wu leen